asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam ni yéene safoo chaîne bi di Buzz Actu 221 ñu ngi sàkk bu baax ngeen abonné aimé partagé commentaire like ndax kat saa su ne loolu dina nekk li nga xam ni lu daal di jàppale la moom mi nga xam ni moo di député activiste bi lay daal di wuyu turu Guy Marius jamono guñ toll nii mun nañ ne àdduna bu baax a baax jëmale ci li nga xam ni moo di guvernement wu président Macky Sall bi le daal di xamle bis ni tey mun nañ ne daal dina jàmbaarloo bu baax a baax ak boobule gouvernement ngir kat daal dina xamle bu baax ci dox diggante kii di nga wuyu la turu Didier Badji l'adjudant Didier ak ñi nga xam ne ñoo di Fulbert Sambou ñoom ñi ci ginnaaw ca yi nga xam ni saa su ne dañuy gis ni ñoom ñi le dañ cee wane ak pataaral bu baax a baax ci loole mu nekk mbir bi nga xam ni lu yéeme ak lu doy waar la ngir kat daal di xamle bu baax baax moom député bi la député activiste bi la daal di ne wéyal di nga xam leen ni ñi nga xam ne ñoo di état bu Sénégal saa su ne dañuy daal di dëggal li nga xam ni moo di xalaatu lenn ci sénégalais yi ngir kat di wax mbir bi dëgg la wala du dëgg ci ñi li nga xam ni kat régime Macky Sall ñoo daal di rey ñaar ñooñu di Fulbert Samb nga xam moo di Didier Badji moom Guy Marius Sagna daal dina xamle bu baax a baax nag jamono guñ toll nii pataaral bi nga xam ni état bu Sénégal daal dina koy wane dafa mel ni ñoom ñi le dañ daal di bëgg a dëggal lool nga xam ni saa su nekk sénégalais yi ndax lii kat dëgg la wala dëgg na mu nekk mbir bi nga xam ni saa su ne dañuy gis ni naan ñoom ñii di nguuru Macky Sall leen ñoo rey loolee tax na moom muy woowaat bu baax a baax nguuru Macky Sall gi ngir ngir kat ñu daal di génn ci seen patable gi ñu nekk nii daal di teg lu leer nañ ci loxo sénégalais yi wax kat bu baax ñen ñoo liquider ñaar ñii la di ndaw sénégal yooyu la daal di xamle jëmale ko ci nguuru Macky Sall bu baax a ginnaaw loolee mën nañ ne ci li nga xam di bi nga xam ni lenn ci kujje nañ koy bi nga xam ni mën nañ leen lenn ngir kat ñu bàyyi kii di leader Pastef bi di njiital Pastef li wéy turu Ousmane Sonko ginnaaw ji loolu mën nañ ne ci week bi ñu jëm kat mën nañ ne daal taxawal leen li nga xam ne moo di semaine de la libération ngir kat jëmale ko ci lenn ci 19 manifestation pacifique bi nga xam ni daal nañ ko xamal amale ko ci mim réew di Sénégal ci jàpp ci li nga xam ne moo di weekend bi ñu daal di dënmal lu waral li ni mel du leen ngir xat ñu daal di bàyyi li nga xam ne moo di détenu arbitraire maanaam jàpp ñi nga xam ne saa su ne dañ koy jàpp fee ñi nga xam ne di leen tëj ci kaso bi te mën nañ ne jàppin bi nga xam ne teguñu ko fenn ci li nga xam ni moo daal di jàpp yoon jaar ci yoon te loolee sax ñu daal di xam le yooyu la marche daan nañ ko amal fi nga xam ne moo di Thiès Pikine Guédiawaye Bignona Diourbel Sédhiou dakaar Koungheul Linguère ak fi nga xam ni moo di Kolda daanaka nag mën nañ ne quarante département quarante trois département yëpp mën nañ ne 46 département yëpp daanañ ko fa nar a amal mu nekk mbir nga xam ni saa loolu bu amee dina nekk li nga xam lu dëgër pëkk la daa doon waaye tamit dina nekk loo xam ne mbooloo bu nar a am ndax nag loolu dina am am yàggatul dara ndax nga xam a ku jege amal li nga xam ne moo di moom mi ngi préfet bi ndax kat loolu dina euh, joxe autorisation boobu am déet way leen di fi nga xam moo di bës 14 actu 221 ndax kat lu mën tukkee ci xibaar yooyu ñu indi leen ko asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu.